dorogé wuñ la yaa ànd ak sa xel di ko accepté loo ci góobe gar ko njaka mhm. tabaarakallaahu Adja Ndaak euh, dégg nga li Adja ab sa wax dégg nga reportage bi euh, loo ci doon euh, moom dafa dafa dafa woote alerte ki woote sër bi dafay woote yuuxu wallu waaw wallu gi nag mooy mu bañ a dem kaso mhm. waaye moom nee na dañ ko dóor ba mu nekk ci diggante dund ak dee mais malheureusement pour elle bi police ñëwee paaka bi ci moom la ko fekk kon neexu la di jënti te dafa def dafa def dafa dafa def ñëw ci kër jàmbur ci luñ la woowul indi fa histoire yor paaka de surcroît parce que nit dem na nit paaka benn jam-jam rek mu dee mm-hmm. te fi ñu toll ak criminalité bi ni mu développé léegi ci dëkk bi dañ ciy taxaw ci sécurité bi dañ ciy taxaw pour nit ñi am seen am seen sécurité nag ngoro bu yeggee ba ci ak takk ma bu yeggee ba ci yor paaka neexatul. déedéet métti na de. Hmm. da ngay bàyyi nag ci sagom parce que dafay def choix. lom a fait un choix. xaw ma nag choix bi fan la koy mujjee. xaw ma choix bi fan lay mujjee ak moom. Hmm. parce que nekk na ak jigéen jëlal ko appartement nekk ak moom. nekk ak moom boobu ay parents bàyyi ko ci gis nga ñaga libertinage ci ba rek la yóbbu jigéen. dëgg la mën a doon. Hmm. tànk bu toogul dëgg dara. wallaay gis nga il faut que ñu xam raison garder. il faut xale yi xam ni àdduna am na war nga dund jaar ci sa ndaw mais am na lu ñu war a fu ñu war a yem. am na loo xam ni ku bëgg a mucc daal da ngay am foo yemale sa sa mhm. foo yemale sa bëgg-bëgg. parce que li am ci jamono bi yëpp kenn mënu ko am yàlla sunu borom mi bind jaam ñi am lépp ndar képp àddina sax joxul joxul kenn lépp. Mhm. kenn ku ne am na loo amul sa morom am. Mhm. loo bari alal romb loo moomul. loo bari bari le alal di nga moomul. am nga lu lu bari loo xamante ni am na lu la manqué loo xam ne kii rek ko am te mënoo ko jënd. kon sama boroom noonu mu répartir àdduna ci la ñu war a dund en conséquence. Mhm. pour suñu mën a dund am équilibre surtout jigéen déjà moom indi na boppam mauvaise réputation. Mhm. ah turam siiw na. mel na ni làkk si ko kon am na loo xamante ni su ko defee ba egg ci réseaux sociaux yi te moom su ko ba takkul woon keneen mën na ko takk. moom su ko kooku jëlu woon. foofu la keneen na ko jël. Hmm. waa kay. fa la way mais xam nga booba nag. Uh-huh. xel ma dem na. laay ndax la jàll moo ko traumatisé. la ko romb te mënatu koo loolu loolaa yàq addinaa mu ne naa dem jaayante kook moom. te foofa weer sa bopp la waaye du am bénéfice. et pourtant ndax ceetu moom ku ci mer. ku hmm. tolli ci ceetu. Hmm. surtout tey mariage. takk xale bu jigéen bu toog kooku ku mer yaa yokk sa problème. wallaahi bu dee paa bi sax. soo ko meree fekk mu ceetu sax yow yàq waaye yàq na ko mais. xam nga loolu maanaam objectif moom moom moom éternel. mais mariage bi am takk nañ ba pare. a yàq feet gi. feet gi la yàq feet gi la yàq mais yàqal na boppam. mëntu la dabu. Oh. siiw na ci. yàqal na boppam. bari na góor gu am personnalité wala góor gu am fayda am fu la war a jël jabar boo ko di jël fa nga koy bàyyi te pourtant bu toogoon ni pat ak la ko naqari. kenn du xam ni moom toog du ñu xam ni moom du ñu xam ni amoon na. sa maam na wax raxasal toog boo ne tàggoo na mu ni ka xamul loo ko jaay jaral na ko. Mhm. jigéen prime du wàcc. et puis et puis nga baal ma. prime du wàcc prime du wàcc. xam nga moom lii mënoon la ko servir de leçon. bu waa ji demee takk keneen mu toog ci ruq mën a kanam xoolaat li mu def. mu servir ko de leçon nag ba nga xam ne erreur boobu dootu ko dal benn góor dootu ko jariñoo mm-hmm. mu toog nag yaraat boppam erreur boobu passé na le passé c'est le passé kaneen ñëw mu sëyal ko sëy bu rafet mais li nag yar na xale yu bari bu baax message la bu fort boo xam ni bari na ñu nekkoon ci situation bi dinañ jël tànk arrière nag yàlla sax ni ñuy jëlee tànk arrière sax bu ñu yeewoo nag laa la wax bu ñu woo mm-hmm. waaw am nañu nelaw ba léegi groupe bi sax yeewu leen maam Sidi ci téléphone bi dugal ko ci 88 628 89 90 ngeen bës 1 88 628. 28 28 ngeen bës 1. Bakary bu téléphone bi Bakary bu téléphone bi ñëwee ngeen. ngeen dugal ko te bàyyi xel bu baax ci émission bu mag bi. Eh, salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw foofa la Sen TV. waaw Sen TV la. waaw man la Backe Gueye di leen fii ci Pikine. ana waa Pikine bàcc. ñu ngi ci jàmm ñu maa ngi nuyu sama ñaari maman yi. waaw man na c'est la première fois que may woote si télé ak si rajo quoi. télévision. juste dama seetaan thème bi. Mm-hmm. waaw. bi frappé ma. Mm-hmm. ma xam ci loo xamante man bien vrai que jeune la ndaw la mm-hmm. mais am na samay mbokku sénégalais yoo xamante léegi ils son en de s'occidentaliser maanaam di jël culture européenne yi. waaw parce que man mi bitim réew laa nekkoon avant que may de revenir au Sénégal. waaw yaa wax lu neex. parce que fi mu toll nii ñun ñun jeunes yi. ñun xam nañ li ñuy dund quoi. Mm-hmm. parce que même en France da nekk foofu yor sa appartement. Mm-hmm. léegi nga gis benn xale bu jigéen boo xamante ni il accepte elle accepte de vivre avec toi en concubinage. Mm-hmm. sans autant que nga marie ko. te loolu ñun suñu diine ak suñu aada daf ko dàq. léegi nag euh, société boobu noonu nekk Europe. ak yeneen dëkk yi. Mhm. moom lañ bëgg indi transposé ko au Sénégal. dëgg la. loolu du sunu euh, du sunu aada du suñu jàngu suñu maman yi ak sunu papa yi jàngu duñu loolu yarewuñu noonu. Mhm. boo xoolee li fi am lépp ñun on a on a ñun dañu déraci dañu déraciné wu quoi jël beneen euh, culture boo xam ne du suñu culture maanaam culture tubaab.